jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax ñoo ngi seen émission bu mag bi ñuy wax jàmmaarloo jàmmaarloo nag tey dafa génn ñëw ba biir pikin seet si ki nga xamante ni mooy soq naan soq dugub soq ca dugub ko soq wal ko tey ko du la jaaxal defe naa ne tey ñoo ngi biir Pikine xanaa ma bàyyi ko mu nuyoo ñu wel waxtaan wi sook nuyu naa la. yaaram waaw maa lay fay di wax onze billah bisimilah inna wali yàlla di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba. jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul may santaat Serigne bu wér di santaat suma yaay bu baax a baax di santaat suma yaay di ko ñaanal gudd fan ak wér di ñaanal suma soxna Jike juuf yàlla defal ko jàmm yaayu Bamba ak Seydina Mouhamed di ñaanal mboolem doomi aadama di ñaanal suma nijaay Jibi Joola yàlla guddal fanam xam nga yokk taxawaayam ak mën-mënam bu baax ci barki yonent bi di ñaan senegal yàlla na fi jàmm yàgg di ñaanal waa ginnaaw raay gi ma juddoo yaroo fa màggee fa ñëpp am jàmm di ñaanal waa pikin di ñaanal képp kuy doomu pikin yàlla suñu borom defal la jàmm ci barki Seydina Mohamed ak képp kuy doomu aadama ak foo mën a dëkk yàlla defal la tawféex ci doole Serigne Touba. Euh, yàlla na ko yàlla def mais euh, keroog da nga bëgg bu neex boo xamante ni sa diggante Gamou Gueye combat boo xamante ni nii. bokkoon na ci li lay delloo ci làmb bokkoon na ci li nga xamante ni soo ci jugee dina mën a wax soq ak diw wala boog soq yëgg na benn niveau bi mi nga bëri ko ak manière yàlla dogal nga am ci ndam bi ci amee ndam boobu ak léegi soq déggaatuñu ko ñoo ngi dégg nag ay combat ñuy romanaat soq euh, kii mbay guy gi soq keneen ak keneen mais boobu ak léegi fan nga tool non maa ngi kawam moom mais soq mbay guy gi moom dégguma ko quoi. amul benn promoteur sax bu ma sañ a woo naan ma yàgg mbay guy gi. waaw ah, lu tax sañu laa woo di wax sa diggante ak mbay guy. non non lu tax ñu may woo di ma wax mbag maag mbay guy gi man mënu di bëri di daan champion yi di gestuwaat di bëri ak ñi si ginnaaw parce que tey tey képp koo gis ci àdduna muy dox dafa bëgg li mu nekk mu ci dem di avancer di am ay tànku kanam mais mënu maa bëri génération bi ma nekk ñëpp bëri ñëpp bëri ay Pape Mbaye bëri ay. Ramdan bërëg ay doomu dàngu bërëg ay laay Pythagore comprendre nga bërëg ay mobile 2 bërëg tey ay Youssou Ndour bu lébu gi bërëg tey ay ndigal bu géejawaay bërëg gàmmu gay barki Demba Ndiaye wëlbatikuwaat di bërëg mbay guy gi loolu du avancement loolu du yokkute sokk sax si làmb te man war naa dépasser niveau boobu niveau boobu noonu man ba ma bëree ci kalaaf bi am ci benn victoire ñaari defet dama replier waat bëreeg Nandi Fall replier waat bëreek Gamou Gueye kon li tax ma replier waat bëre waat ak ñoom c'est parce que fi ma jugee moo tax ma replier waat bëre ak ñoom bëre waat ak ñoom defaat ay confirmation kon jot na ma bëreeg gars yi mais pas ay mbay guy gi mbay guy gi bu ñu waree bëri dinañ bëri xale la may xale mais jamono ji ñu toll nii samay tànk da ko jéggi lu bari te kenn du ma woo di ma wax waxu mbay guy gi pour lan promoteur war maa woo war a ma waxu Moussa Ndoye waxoo ma waxu Modou Anta waxoo ma waxu keneen di ma wax waxu mbay guy Gui pour lan wanu ma sax promoteur yi ñàkk fayda boobu. kon sa xel a ci Moussa Ndoye. non man Moussa Ndoye maak moom léegi mu taxaw ñu ngi koy dox nañ ñaan yàlla mu sotti bu sootee ma bëreeg moom daan ko dem bëreeg ñi ma war a bëreel. dama gis bi nga bëree ba noppi keroog da nga jug laaj ki nga xamante ni mooy Zos. sa combat ak Zos bi nga ko laajee est-ce que promoteur woo na la wax ci wala boog waxaat nañ lu ci non Zos mosuma koo laaj. wax dëgg fa yàlla mosuma taxaw ne nañ ma jox Zoss am na ku ma woo ni ma ndax bëgg nga bëreeg Zoss ma ne ko bëgg naa bëreeg moom ndax ku bëreeg guy gi bëreeg Ama Balde bëreeg Boy Niang kooku man rêvé pour bëreek moom ndax palmarès baa tax mais taxaw ma fenn ni nañ ma jox Zoss man ba ma bëree ba pare damaa xool xale yi fi ëpp doole ñi ñuy wax naan dañoo am kàttan ma ni ñoom laa bëgg a bëreel ñu wax ma ni leen Sa laa bëgg a bëreel rëg-rëg Moussa Ndoye Anta ak guy gi ñooñu laa cité ni ñoom laa war a bëreel te dama war a bëreeg ñoom. mais Mbagnick Kaïré foo ko kii euh, mbañik la. Diène Kaïré jën foo ko bàyyi. non jën moom ñemewu ma man ay waxam dootuma ci xuus jën moom amateurs yi sax xam nañ ni Diène ñemewul soq. ndax soq nag soq nag bëree moom mun ta weesu bëree fan nga teg ni jën ñemewu la. non Diène ñemewu ma parce que li tax Diène ñemewu ma Diène moo ma gën a baax palmarès ci làmb. Diène maa ko ëpp ay victoire. jéen man ñi ma bëreel ci làmb jéen bëreewul ak ñoom tey bu ñu taxawee di ko wax soq mu naan soq na liggéeyaat day nax boppam lu may liggéeyaat yow ku la ëpp victoire bu xale yi mu bëreel ci làmb bëreewoo ak ñoom bëreeg sama génération daan ñëpp man ñeenti mbër ma daan laay Pythagore ma daan ram daan doomu dàngu musique ñoo ma daan ci làmb ay champion ma daan ma daan ay champion man musuma bëreeg mbër muñ naan soq day làmbaatu wala daa bëgg yoon. man mbër yi ma mës a bëreel sama carrière yëpp dama leen fekk ñu nekk seen digg ndaw ma bëreeg ñoom daan leen ndigal bi ma koy daan neuf victoire la tegale kenn mënu koo daan. daan ko ak manière. ma jël ko sama premier grand combat daan ko ak manière. Rambo bi ma koy jël huit victoire la tegale kenn mënu koo daan ma jël ko daan ko. Stade Demba Diop la woon combat boobu. Demba Diop Pape Mbaye mi jommaloon ñëpp dama ko jël bëreek moom quatre-vingt-dix minutes yàlla dogal ma am ndam ci kawam. comprendre nga mobile bu Grand Yoff tey ku mu gënul pare ci làmb gënoo koo pare. dama bëreeg moom laa ma jooju signature contrat bi rek lu ne. Youssou Ndour bu lépp gi bi may bëreeg moom Arena Tour la génn ñëpp bàyyi ko fi ma jël ko daan ko man mbër mi fi mës a bàyyi rek jël naa la daan la. Boursine bu lépp gi Boursine bu Bawal bi ma koy jël barki alxuraani karim huit victoire la tegale ñëpp da leen dóor ñu daanu bi ma koy jël sama staff sax man dañoo bañ ma ne leen dama koy jël. jaar fu metti ci làmb coow lee bari rek ñii di wax di ndellu di r làmmiñ suñu génnee seen palmarès teg ma génnee xale yi ma bëreel ci làmb teg. barki maam Seera Fall waruma sax bëreek ñoom mais dama dugg ci kalaaf mu am nu mu demee ma replier waat bëreeg ñi ma war a bëreel tegaat ci course bi kon tey ñoom buñ ñëwul lu ñu bëreek man damay jàpp ni dañ maa ñemewul du ma fi nekk nag di wax ak koo xam ne ñemewu ma comprendre nga ba ci marle barki Demba Ndiaye maa ngi koy déglu bañ waxee ba tudd ma dañu noo soq soxlawu ma soq pour bëreek moom pour lan. maar dafa bëgg wax dala xep ni moom Moussa Ndoye la soxla wala kii mais soq moom soxlawu ma ko. mais gisoo ni gisoo ni yow Marley Diène Kairé peut-être Moussa Ndoye wala Modou Anta yéen ñeent bu ñu leen dugaloon kalaaf nga loolu yaakaar loolu du neex parce que dégg naa foog naa ci yow bëy ne ñoo la doon bëgg a dugal ci kalaaf xaw ma nag. noo man nekkuma fi sax di wax kalaaf boobu ni ngeen koy déggee nii noonu laa koy déggee dégg naa mbay guy gi keroog muy wax ci télé bi démb xaw ma barki démb naan ñu ngi dox benn kalaaf boo xam ne soq moomu mu ngi ci ak Franc ak. ak ak ay jam ceeri man lu may dox di bëreeg ay jam ceeri ay mbay guy gi du ñooñu du man ak ñoom ay champion lañ def nañ ci làmb lu ma ci deful mais man ñooñu taxuñ sax may nekk fii di rey sama bopp di entraîner man dama war a bëreeg champion yi il faut gars ñu xam loolu man xale laa te mbaru amateur yi la amateur yi ñoo mu bëggal seen bopp forcé wu ma sama bopp amateur yi man damay ñëw ci làmb wane li amateur yi bëgg jël dem sama yoon man boo may daan sax si jom nga may daan bi làmb yi ma gën a ñàkk làmb yooyu laa gën a téye ci sama loxo kon tey man nekkuma fi di wax ci yenn affaire yi buñ ma ñemewul nañ puus dem xooli ñi ñu bëgg a bëreel ñu bëreeg ñoom man soq lamb jafewu ma promoteur yëpp bëgg sama combat amul promoteur bu bëggul tëgg sook ndax boo ma tëggee doo ko rëccu lu bis bi laaj dama koy def te du ma bëre làmb ju géey loolu yàlla defal na ma ko musuma bëri ci sama carrière lamb bu géey Iba Mar bu ma fay bëree miti damay tëj stade bi arène national keroog ni ma ko def amul sama benn morom ci sama génération bu ko def noonu. waa Pikine fees nañ fa del bu du te AS Pikine da doon gérer sax moo tax mu demee noonu AS Pikine da doon gérer match final keroog stade bi mel noonu ba AS Pikine gérer wul woon nu muy mel man doomu Pikine laa.